xam nga man dama jaaxle tuuti dëgg la nag xëy na wax dëgg yàlla nit ñu bëri bëgg nañu xam ndax président de dem wala du dem. loolu bon mun naa reconnaître ñi nga xam ne dañu yàkkamti pour xam loolu. Mhm. seen seen devoir la seen seen droit la. Euh, li ma xam man mooy d'abord dafa am ñu ma ko seqal te ñooñu bu jotee. ak waxtu bi ñu koy waree traité dinañ ko traité. xëy na nag yàggatul waaye. bu ma toppoon nit ñi kon ba ma ba ma bañ ma fale avant même 2019. kon dañu posé débat bi. ah 2012 déjà am nañu ko posé. li ci des nag mooy bu jotee dinaa wax incha allah kon nañu muñ ñi mënoon muñ nag mën nañu wax ñoom. Mm-hmm. parce que fii kenn moomu fii kenn ñi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne war nañu nekk candidat mais nañu wax seen candidature te ñu may ma jàmm. mais nag kañ lay jot président donc fanaanal baa ngi bëgg a bu jotee rek incha allah dinaa ko wax. Ah. xëy na du yàgg.